merci beaucoup waa service commercial ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax a baax ñu tolloon ci complicité entre le corps enseignant maanaam surveillant yeeg professeur titulaire yeeg maître yi ci boppam ak maîtresse yi ak ñi nga xamante ne ñooy parents d'élèves yi problème bi fan lay posé wu. d'accord xam nga dafa moom dafa wax tey sànq-sànq benn dafa am fu mu waxee. Hmm. moom maître enseignant la. jox ko joxal ma ko micro bi ak. parent moom moom la moom mii sol parent bi. <laughs> moo it sol pain bi enseignant tey moom moo a jàngale li nga xamante ni moom mooy éducation at euh, at li nga xamante ni moom mooy éducation bi euh, violence yi si école bi tey tey li mu ni mu habillé woon nii ni mu solee nii tey bu ko bu ko bu ni muy est-ce que moom noonu lay noonu lay éduquer si école ba moom lay jàngalee élèves si école ba wala ma loolu rek laa bëggoon xam si yow dama lay dagg xam nga ñun on parle de violence violence si benn côté loolu agissement la comportement la mais li l'habillement bokkul ak ak milieu bii nii li ma sol nii on est la télé mais limay sol à l'école bokkul mais on parle de violence lan mooy indi violence violence fan lay jugee violence ça ne veut pas dire que ne si habillement la mais non écoute non non du forme de violence c'est pas dama koy dagg parce que xam nga lu tax ma koy dagg euh, gis nga nit parfois bul juger ci nit ki lu muy sol wala lu muy def Olof Njaay nee nañ bu nit ki dee liggéeyal bul xool jikkoom xoolal lim lay liggéey ndëgam baax naam baaxul forme de violence yi fi am dafa bari mais da ngay gis nit di xeex benn affaire par la violence mais da koy am mais su autre forme ñoom Lat Joor ñoom Serigne Touba mais da doon xeex mais loolu mën nañoo tuddee ne violence la mais violence non armée mais violence non armée violence pacifique pacifique uh-huh. dafa am ay forme de violence mais violence yi ñuy def fii nii ñun mooy yàq toj ay boutique ak toj ay station yooyu na fekk na la ñuy loolu moom déglul fekk na la ñuy xeex man ñooñu laay wax parce a jug waaw parce que dara amu si njëriñ sànq maa ngi dégg yéen a ngi wax naan suñu autorités yi dañoo war a yee nit ñi sensibiliser ci kii euh, affaire maanaam violence yeeg mais réseaux sociaux yi mi ngi dox whatsapp bi mi ngi dox on fait passer les message ñun si suñu bopp ñoo war a njëkk taxaw temm jug def lu ñu war a def sans pour autant xaar les autorités bu fekkee ne ñoom ngay xaar xoolal di nga mus toj dëkk bi comme ni ko Madické di waxee di nga ko def rajax <laughs> te moom la ñuy bañ. li mu wax li am importance la mais tey ji fenn laay dikkee rek suñu xoolee violence yi man je peux dire que ne dañu lié. te balaa nit ki di euh, euh, violent verbalement psychologiquement il est verbal te yooyu yëpp dafa am lu koy indi muy comportement bi toujours. ndax nit ki comme euh, soxna si ni mu ko waxee sànq dafa am lu mu am importance lu mu wax ndax soo jàkkaarlook nit ki nga étudier kat kii su ma waxee moom ci angle bii peut-être du créer frustration du indi euh, lenn loo xam ne ni dina indi gêne par rapport ak nit ki du mën a indi violence comme lenn li Sénégal euh, li may wax rek liy indi violence yëpp toujours ñun ñoo ko jëmbat ci suñu biir ndax dañuy dem di jéggaani lu ñu moomu ndax forme stigmatisation day pousser nit mu kii parce que li ñuy wax rek comme li maa ngi koy wax sànq mu ne ma oh, oh, moom ne ma non non du forme de violence man jàpp naa ne li mu def nii nii léegi forme de violence la ndax daf ko stigmatiser par rapport ak na mu solo parce que il est libre c'est son choix mu da koo war a respecter par rapport ak choix boobu xam nga c'est pas dit que c'est un enseignant que nii la war a solo foofu beneen axe angle dafay ñëw ñëwati parce que euh, su doon dañoo régir kat ci code de l'enseignement ñu ne kat enseignant bi dugg école nii ak nii la war a solo ñii ak ñii la war a conformé woo étudiant ba élève ba dem peut-être que foofu stigmatisation du fa am kenn du index ak kenn ba violence di fa ñëw voilà. je mais tey bu fekkee non foofu d'accorduma ma xam nga lu tax ma tout simplement dafa am habillement habillement du benn façon yére rek bu ngay sol. non mais attaqué wu la dafa ne. waaw non dama koy dama dama koy dama koy wax ci benn côté boobu mu la wax. Mhm. mënoon na indi violence ci plateau bi ndax mën ngaa gis sa bopp réagir loolu la wax. non pas du tout pas du tout pas du mais tamit mag du sol pain waay <laughs> mag du sol pain wu ah. non xam nga du pain wu non xolo non écoute. Ah, écoute non écoute non ma ne ko lii rek violence la xale yi bu la gisee nu ñuy def. non pourtant man ba ma génnee ñu bëri wuyu ma pourtant ba ma ah xale yi bu ñu mag du lu ñuy def. non. damane ne non non dama ne dama mhm. ne man ku ma xam sëriñ Momar ndaw xam ne damay solu façon solu bu bari ak milieu bu nekk la muy laaj la ma fay sol. mais pour moom ma ñëw pour ma ñëw. bu fekkoon ne dañ doon wax ci côté habillement wala daa am leneen lu ñuy def du ma sama grand boobu bu sol lay sol fi mu li ñu intéressé mhm. mooy li ngay wax mhm. pas li nga sol waaw parce que on entre jeunes mhm. mun nañ sol relax émission entre nous du émission boo xam da ngay ñëw xoju xam nga sol bien yére yoo xamante ne c'est sérieux on est relax waaw dama lay jox benn exemple si loolu si maam Cheikh Ibrahima Fall dafa mës a ñëw di yalwaan sol ay yére yu yàqu fu mu dugg di yalwaan kenn du ko jox dara nit ñi di ko di ko xas di ko wax n'importe quoi mm-hmm. par la violence mu am la sens de la maîtrise mm-hmm. mooy li naan góor yàlla yi fi ñu rawantee mooy ci maîtrise mm-hmm. mu dem solu costume solu ab yére yu baax yu tubaab te ku ñu ku xool la xam ne ni ay solu tubaab la mhm. mu ñëw solu dugg ci biir kër yi fu mu fëgg ñëw toog ñu entré ko jox ko lañ koy jox mu jël dugal ko ci poosi ko mu ne leen du man ngeen teral de mais yére bi ngeen teral kon ça veut ki que ne bul xool yére bi mais xoolal comportement nit ki parce que bu ñu dee wax violence c'est le comportement waaw léegi si en tant qu'enseignant mhm. parce que am na violence yoo xamante ne day am euh, ci école waaw loolu forme de de violence bu mel comme bizutage par exemple nga mhm. xam jël benn xale topp ko foo mu fu mu dem ñu mhm. nangu guteem mhm. di ko dóor di ko mhm. xas ba xale bi day dem ba li indi école buissonnière du nangooti jàngi sax parce que day ragal bu demee école yéen enseignants yi ban rôle ngeen ci joué avant may ñëw si rôle boobu noonu man je suis un enseignant je connais très bien le milieu parce que man damay dingat yenn enseignants yu bari parce que du ñu ay nit du ñu ay gor tamit aussi buñ la joxee doomu jàmbur yow nga war koo jàngal def ci moom une éducation exceptionnelle. Mhm. bi ay parents di xaar donte ne ay parents sax mënuñu ko mais tu vois des enseignants yoo xam ne nii dañuy doxaan ay xale. Mhm. di may ay notes léegi par exemple su dee may kii note dix dix huit mais ñeneen ñi dañuy frustré beneen violence lay indi. Mhm. loolu beneen forme violence a ngi noonu. dañuy contre maître bi. loolu moom violence totale la moom. waaw en plus loolu moom xale bu nekk à l' tu tu dans la classe tu leur laisses ah ok y' a pas de problème une fois à la sortie comme on réglait nos comptes là le vendredi da ngay le vendredi au cité Balabé ah le vendredi c' le règlement des comptes. Mm-hmm. mais prof yi dañ romb. Mm-hmm. bàyyi la noonu man je le fais pas man moi j' accompagne à la maison. Mm-hmm. damay dox tout le monde m'admire li may wax nii je le parle. fi ma nekk ñëpp xam nañ ko man Serigne Momar Ndao. quand tu dis Serigne Momar Ndao dañ naa la non je le connais mais je suis pas mais damay wax dëgg dama lay wax li nga xam ne moo am ça existe du ma ko nëbb parce que su ma ko nëbbee fii dañuy toogaat keneen mën na toog ne loolu am na parce que du rafetal sa der la nga mën a wax non du ma rafetal sama der parce que enseignant yi dama naan a yi yàgg nañ leen enseignant yi yàgg nañ leen filmé nga mën a am na ñoo xam ne ñu am na ñoo xam ne ñu dëng bi nga nekk rek ça veut dire que yow bay ci sa waar ba mu mat sëkk boo ci bayee sa waar ba mu mat sëkk rek violence du am mais boo bëggee indexé nit ki ne yow dong da ngay nax sa bopp nit ku nekk mën naa toog ne man nit ku nekk mën naa toog ne man je suis pas violent nit ku nekk mën na ko wax mais si nit mën na ko wax xam nga nit ku ne yow peut-être ñi la ñi la xamal ñun la xamal bu la ko doon wax tey tey tey tey duñ fi jugee mhm. wala boog ñi la xam duñ fi jugee mhm. comprendre ah. mais loolu yàgg na si enseignant yi ñu jàgg gis ay vidéo yoo xam te ne dañuy dañuy dañuy dañuy kii seen seen seen élèves yi yooyu yaa ngi leen ko gis dañuy dañuy dañuy def ay chantage seen seen seen élèves yi comme li nga wax léegi nii. mais loolu ça existe moom laa ko wax mais loolu bu ñu ko defee loolu bu ñu ko def ci loolu bu ñu ko defee ñun dañuy jël dañuy dañuy généraliser rek lañ mën def. ñun ñëpp ñoo yem waaw mais même boo dee généraliser même boo dee généraliser. ba même boo dee généraliser ci côté violence bi ñuy wax bas ci violence bi la ñuy wax ba tey. voilà comme comme que enseignement wax nga si si violence à l'école. voilà jox sama xarit micro bi. voilà ñu ñëw si ñu ñëw si conséquences yi parce que violence mën na jur loo xamante ne maanaam lu ndaw lay nekk mais mu indi loo xamante ne lu lu graaw la après. effectivement voilà mm. léegi lan la mën a indi violence. li mu mën a indi dafa bëri. Mhm. dafa dafa bëri ndax euh, mën nañ ne soo xasee ba ne violence rek mën na doon source malheur boo mën a xalaat. Mhm. mën na source doon source malheur boo mën a xalaat toujours pour contextualiser rek. Mhm. Euh, ci période bi ñu toll nii muy. période après élection bi. Euh, gis nañ ne kii mi ngi bëri ndax instant bi nit ñi ñu ngi jóg. ci violence verbal bi ci violence physique bi di wax. Mhm. tey jii gis nañ ne euh, gars yi jóg nañ di wax vote ethnique. Mhm. te loolu source de violence. Mhm. mën na indi ñooñu ñu rétracté wu ndax gis nañ fi yeneen pays yu dul biir Sénégal loolu dafa indi génocide bu mel ne Rwanda. ak euh, xam nga. yéen a ma gën a xam. bu ñu kii kon c'est à éviter. ndax euh, quoi que l'on puisse dire suñu pays am na stabilité boobu boo xam ne nii dañ ko koo nawee ba fi mu toll nii yàlla na yàlla xeb dool li mu jëm kanam. juste rek pour soññ nit ñi. que ne tey mën nga euh, euh, jëmbat violence te doo ko xam. on peut être violent sans en rendre compte. Mhm. ndax mën nga def yow jàpp ne de manière délibérée ah li ma def de c'est pas méchant. te mhm. fekk ne loolu mën na jur beneen malheur ci conséquence violence yi ci conséquence violence yi ba tey da ngay gis tey comme ni nga ko waxee tey mën naa ñëw Badji on a d'excellentes relations ma ñëw tey. Mhm. je m'attaque à lui. Hmm. moom am na ay nitam ñooñu rétracté wu contre man léegi euh, mu doonaat source d'instabilité. Hmm. te fu instabilité am rek jàmm mënu fa am fu violence am jàmm mënu faa am. mais foofu damay dog xam nga foofu lu tax may dog violence bi di am parce que bu ñu attaqué Badji moom mi nga xam ne mooy en tant que leader du group ñu attaqué ko te moom waxul ses partisans ne réagissez pas mais day toog mieux. bu noppee ces partisans dañuy jóg dem révolté wu te moom moom mi nga xam ne mooy nayu mili ji moom moo war a mën a def lépp ba nga xam ne ñoom sax duñ ko dégg très bien moom moo war a wax ak ñoom ne leen arrêtez de faire ceci ou cela mais dañuy toog bàyyi la population wu révolté wu yàq ba pare ñu bëgg wax ne ah non c'est la jeunesse moom def na li mu waroon def il n'a rien fait mais Badji Badji bu nekkee un bon citoyen xam nga dañ naan celui qui rend violence par la violence ne la loi hein il faut ñu xam ne bu ñu juddoo dañu juddu ci sant yàlla Sénégal ci état pas ci monarchie état mu am nu ñu ko doxalee violence wax nañu cause yi ñu ñëw ci conséquence conséquence yi moom dafa dafa grave boo defee violence ci xale su màggee kooku pour mu def agression pour mu def viol day grave d'habitude ñuy def yenn crimes yi boo dee xool ils ont été violents. waaw waxoon naa ko si début émission bëgg naa nga gën si xuus parce que neena naa léeg da nga gis xale boo xamante ne du réagir du wax du def benn bruit mais da ngay jékki-jékki rek. mu am benn comportement ba nga naan fii fu ñu ko jëlee fekk xëy na ba muy nekk xale amoon na violence buñ ko defoon boo xam ne da ko atteindre psychologiquement mu dem ba nga xamante ne day màgg def violence ci ñi mu wër. de toute façon en tout cas tous tous les enfants euh, les mineurs yi ñu xam yu def crime Sénégal boo ko toppee ba topp violence bi seen famille la jógee. moo tax il faut il faut ñuy comprendre ni il faut dañu nekk ci état dëkk dafa am nu muy doxee on peut pas répondre la violence par la violence dañuy enfreindre la loi war a sanctionner ngi la juridiction police moo war a def ay poursuites wala gendarmerie ñu ngi koy def mais nag dafa milieu yoo xam ne c'est des milieux soit fermés wala semi fermés comme école c'est-à-dire que enseignant wala professeur mënta exercer en aucun cas de la violence bu bu ñuy dóor élève dóor nañu jàpp nañu ko jàppee correction parce que mooy li wax sànq ci ay discours le discours doit changer professeur dóor bi muy dóor élève buñ ko ñuy woowee violence mais c'est de la correction ku nekk ci côté nañ la ah c'est de la correction euh, sànq mooy war a enseigner di di doxaan di jël ci xale yi loolu moom ci comportement nit la je pense sa école y' a pas y' a pas qu'un seul a pas qu'un seul enseignant qu'un enseignant y' a corps corps professionnel bi fa nekk y' a directeur y' a le principal ñooñu ñoo war a def benn collégialité ba nga xam ni yi xew ci école yi ñu koy gérer en tout cas ñun lycée yi ñu jàngee école yi ñu jàngee lépp dañ ko daan lijjanti ba yow élève bi doo sañ def yéen ñi mooy li may wax man sañu moon watu def tere sañu moon sol sol jean déchiré je le plan vestimentaire d'une manière boo xam ne li may gis léegi et samay jarbaat dañ koy def mënu ma ci ñoom dara sama doom sama jarbaat day wattu def trait bu demee école li may njëkk gis mais professeur bi lan moo tax du ko dàq loolu mooy di njëkk donc état c'est c'est un ensemble il faut ñu gérer la la la situation de manière holistique mooy euh, de manière totalitaire mooy que ni xam nañu jamono ñu toll c'est pas que seulement les parents ñooy yar parents parce que le plus de temps bu élève bi def ci ci dans sa vie c'est à l'école donc il faut que euh, cette complémentarité am ci école yi man je vois mal suma waa ci am euh, wattu def trait te professeur bi dàq ko des fois c'est très compliqué waaw dama lay couper parce que euh, éducation bi incombé wu seulement au parents mhm. et euh, à l'école mën naa ne mhm. parce que c'est la société d'une manière générale moo war a yar fi mu toll nii Sénégal on se fait du mal mhm. on s'est fait du mal moo tax gu toujours chaque jour dañuy nekk ci rythme violence xam nga comment est-ce qu'on se fait du mal man Badji je ne peux permettre man ma corriger sa doom man je ne peux pas me permettre ndax tey jii su ma génnoon ci biti tasante sooy doom muy def du n'importe quoi su ma ko dóoree mën naa subir conséquence voilà wala sa doom su duggee ba ci biir kër danaan la maytul ma sa papa di wala maytul ma sa wala mu ni la lu tax ñëwoo wax ma ko ma dóor ko voilà loolu lan lay wax de voilà tey jii bu dee parent bu conscient la bu dee parent bu conscient la tey jii bu fekkee doomam muy def naka sudul noonu moom fekkee ko yow nga fekkee ko am nga droit corriger mhm. wax mais dafa am parent yoo xam ne ñoom seen i doom ci seen xol lañ ko def seen bakkan d'accord chéri yoroo micro léegi léegi léegi ñu ñu wax euh, rapidement ci conséquence bi parce que temps bi commencé nañu xoj conséquence bi je peux dire que ni lu bëri am na dégâts matériels mais conséquence psychologique la pour xale yi mm. jeunes yi même si mm. xale bi il n'est pas témoin des faits mm-hmm. xam nga tey il y a les réseaux sociaux tey ji nit mën na def fee dara nga filmer ko ñëw wan ko ay jeunes di xale yi dinañ ko gis lu ci gën a ndaw dañ koy gis affaire bi day des ci ñoom dañ naan est-ce que lii am na ci dëkk bi mhm. ñoom ñooy téye genre yooyu noonu di ko garder ci ba dañuy dem ci benn stade dañuy dem ba dañuy exploser mhm. ñoom ñooy dem commettre même violence yi dégâts matériels yi ñuy def loolu mooy indi ay génocide genre yooyu yi ngay wax ni Rwanda mhm. et tout violence mooy indi loolu lépp moo tax parents yi dañoo war a jël jeunes yi di leen conscientiser informa kii bi je peux dire réseaux sociaux yi ñu bañ cee dugal yu bëri xoolal mhm. ki ñu rayoon je pense c'était à Ziguinchor je sais pas mhm. biñ ko égorgé carrément comme ça man bi ma ko gisee dama tiit mhm. dama sama rakk ji di ma ko naan wan ma wan ma mais je ko ko wan parce que c'était des choses yoo xam ne c'est horrible ah. parce que xale boo ko wanee image boobu di des ci boppam c'est psychologique genre yooyu noonu waaw comme comme comme si base bi bala ñuy bala ngay joxe sa sa sa réaction parce que tey xale buy jàngi sax wala mu nekk dana naan jëndal ma pistolet maman jëndal ma pistolet laa bëgg Euh, jeu arcade laa bëgg maanaam si si jeu yi ñuy jouer PlayStation sax da gis ne que guerre lay am attaque wala yu demee noonu voilà donc xale yi ci boppam man pour man dañ leen di teel a initier à la violence même ci dessin animé yi da nga gis ne duñu dañu defati benn benn ay leçon de morale par exemple wala ay conte de fées ay prince ak princesse yooyu yëpp génne nañ ko si seen si seen kii mhm. waaw loolu loolu bon forme de loolu conséquence la bokk mooy comme ni nga wax si conséquence la bon en fait lu mu si lu mu dafa vague lu mu bëri lu mu tey moo dem ba indi mooy euh, vote ethnique yi ngay dégg loolu violence moo ko indi parce que dem na ne eh, bon loolu lépp lu être man li may li may jàpp ne moom moo ñu moo ko moo ko indil mooy mooy les hommes politiques. Mm-hmm. ñi nga xamante ni ñooy dem def ay ay mun mun dem dem def sa sa campagne rombante te dem sa yoon. Mm-hmm. comprendre mais da ngay def sa campagne xeex am ay rayante am day day dem ba ba ba mooy indi ay vote ethnique wala yu nekk. léegi xale bi ngay wax xale bi nga xamante ni tamit bon mooy bi nga bi nga bi nga bi ngay nekk sa kër tout le temps mu nekk ay parents am xale bi tout le temps mi ngi gis papa ji mi ngi mi ngi mi ngi mi ngi yaayam tout le temps mi ngi koy dóor bu ñu ko mi ngi koy mi ngi koy mi koy mi lu ko metti xale boobu bu màggaale lool noonu lay noonu lay noonu lay noonu lay noonu lay demee noonu lay màggee forme de forme de conséquence la bon lu mu mën a yàq tamit bëri na mooy mooy mooy mooy boo gisee tey tey tey li nga xam te ne moom la état moom moom lay gars tey bu ñu amee problème moom la ñuy dem song ji dañuy dem song ji yàq matériel bi yëpp la ñuy boo xoolee bu ñu ko yaakaatee encore ñun dañuy ñu ñëw rapidement ci solution yi <laughs> joxal ma ko micro mu ñëw ci solution yi. waaw si mën a def mooy. comme nan la mën a def ba nga xamante violence. waaw même buñ demul carrément ndax nee nga métti na pour ñu dindi ko. au fur et à mesure dem ba mu dañ lu nu mën def daal moom mooy commencé ko si ñun. Mm-hmm. ñun bon d' bu ñu defee nga xam ne moom mooy formation yi nga xamante ni moom mooy pour pour pour pour. Euh, sensibilité ak violence yi mooy ñun ñun ñi nga xamante ne ñun c' est la ñun ñooy jeunesse bi bi fi nekk. Mm-hmm. ñoo war a def loolu porte à wala ñoo war a nekk si jotaay yi. Mm-hmm. di waxtaan ak suñuy xarit. di leen di leen di leen di ñaax si loolu. xam di indi beneen beneen état d' bu ñuy indiwaat beneen affaire bu bees comme li nga xam ne moom moo la am di xeex yooyu yëpp yëpp dañ ko war a arrêté. xam nga di organiser ay tee ba comme fi daan am am fu di xeex moom gën naa am mais ay tee daba daan da nga daan dégg ay tee daba tee daba am mm-hmm. mais loolu amatul mm-hmm. da ngay gis ku jógee si koñ bee jógee koñ bee koñ bi ñëpp ñu dayee def benn tee daba wax si benn benn affaire loolu daal laa gis ñu mun ko def xam nga gën a gën a gën a ñaaxaat suñu bopp commencer ko par nous meme d'accord ci solution yi rapidement. dañuy wax ci solution yi tout genre li mu wax léegi dañu war a organiser ay tey mhm. mais tamit xam nga nit mënoo ñëw nekk damay organiser débat ci thème bii nii. Mhm. nit da koy woo ci li nga xam ne moom la bëgg Badji on en a parlé un jour. Mhm. mu ne dañuy organiser genre comme mën na nekk sax concert. nga organiser ko parce que jeunes yi dinañ ñëw. ngeen waxtaan concert bi dem ba mu neex ba ci digg bi nga dagg ko. Mm-hmm. nga wax ak jeunes yi waxtaan ak ñoom conscientiser après nga continuer nit da nga koy woo ci loo xam ne moom la bëgg pour mu mën laa déglu d'accord d'accord am si waaw solution solution mm-hmm. man dama lay dagg sax waaw man ma ni la booy boo organiser concert wax ak ñoom bay bëgg a dee sax duñ la dégg oui ma mais nan la ñu a defal ndànk may ma benn ban solution la ñu mën a adopté. solution pour dàq li nga xamante ne mooy violence ñu jëlee ko fi. benn solution la rek muy ñëpp tàppe xol yi. Mm-hmm. Ah, ku ci ku def dara wala ku gis lenn sax fënatal mm-hmm. ni a ah, lii de bu ma defee lii day yàq mm-hmm. xaaral ma bàyyi mu sedd mm-hmm. mais lu ko mooy wuy ma lu ko mooy mooy dañuy def lu leen neex waaw waaye nag sama xarit yaa ngi fi rek ñoom duñu bàyyi <laughs> dóor rek man MC j'ai comme l'impression que ne day baab policiers yi mais c'est de bonne guerre. samay xarit lan man moom samay xarit lan. moom moom la ñamaloon ci bopp ba. mais euh, tey jii. loolu moom à l'âge de 12 ans de bonne guerre mais man li may wax rek euh, tey jii nii mënuñu. Euh, pour suivre ma logique pour être logique avec moi-même ma wax beneen solution bu dul retour à la base lan moo ko causé woon mm-hmm. lan moo causé violence mm-hmm. manque d'éducation kon nag dañ delluwaat ci éducation li ma interpellé Bathily ma ne ko éducation c'est à tous les niveaux mm-hmm. ci société bi gis nga même télé bi violence dafay am média yi ndax d'une manière indirecte da ngay seetaan film ci film ba nit ka mi ngi jàngeel na muy ex nu mu war a mën a exercer violence ci moroomam mm-hmm. d'une manière inconsciente ñu ngi jàngal kooku nekkat nii nga war a kiiweeg nii ñu ñëwaat ci muy internet bi mm-hmm. y pas plus grande école que l'internet mhm. ndax heure boo fa bëggee dugg jàng dangay jàng mhm. neneen ak neneen ak neneen pour ne pas personnaliser le débat damay je me rappelle en 2012 mhm. euh, bon am na ay nit yoo xam ne def nañ ay actes yoo xam ne peut-être que tey suñ ci doon xoolaat dañuy regretter nangam ak i nangam hmm? euh, parce que loolu lépp lu leen ci incité ñu dugg ca li may wax rek influence société bi peut-être que c'était de bonne guerre comme li ñuy wax démocratie suñu démocratie lañ doon défendre tout tout tout mm-hmm. mais demoon nañ ci ba à un niveau boo xam ne nii nii tey jii yaa na il y a que des regrets. dëgg la merci Khady il y a eu que des regrets. kon daal nañ dellu rek. à l'école bon su ma nee à l'école du école ba ngay dem maître professeur nekk la mais à l'école de la vie ñu jàngaat civisme ci biir néeg ya merci ok waaw rapidement rek nga joxe ok voilà li may li may li may joxe solution ci ci violence mooy lan nañu jub mhm. boo jubee rek mhm. violence du am mhm. parce que violence comme ni ma ko waxee ci jub bi rek day am violence économique sociale ethnie physiologie parce que loolu lépp boo ko gisee tey violence ay ñoom la jor lan la xeex pour seen indépendance pour Sénégal parce que noot nit ki rek déjà lool ça amène de la violence boo jubee rek doo noot nit ki violence am na ci côté boo xam ne c'est une c'est une solution tey man duma la fekk nga yor sa terrain ba pare moom ko depuis say maam nga yor sa kayit boo xam ne yaa ko sa bopp nit ñëw taxaw si ne tey maako ko moom mm-hmm. mais a chaque fois ñu la koy def ñu la koy def mais bu boobaa yow tu vas devenir moo tax ma ne la il faut ñu jub jub mooy lépp am na ñu mës a ñëw si sañ bi di ko ñaan ne ko dañoo bëgg de suñu say bi neex mu ne leen pour seen say bi neex yéen ñaar il faut ngeen jub mm-hmm. kon violence si benn côté dafay am pour nga mën a am li nga bëgg ñu bàyyi la si am na côté boo xam ne nii boo ko boo ko defee yaa ngi yàq. d'accord voilà nañu jub daal. Badji rapidement rek euh, temps bi xoj nañu. Mm-hmm. waaw en tout cas Jean-Pierre Guèye dafa wax ni. Mm-hmm. Euh, y a pas pire violence que le silence. Mm-hmm. mooy li ñuy def nii euh, lu ñuy jéem nii mooy dénoncer ba noppi faj. bu am violence amee ba noppi wut ay solution je pense bien que Sénégal fu ñu toll toll ñu dëkk bi nga xam ni man je suis ñuy wax ay vote ethnique Sénégal mosul am vote ethnique na ñenn ñi presse bi di wax nañu jël sa sa épithète wala adjectif boobu ethnique amul maanaam vote pël vote tukulóor vote joolaas amul Sénégal noonu na ko nañu presse bi dimbali ci loolu amul Sénégal musu fee am. non mais mënoo ñoo attaqué quand même. su ma nee presse bi solution violence la wax. parce am na voilà non xam xam discours tant que changé wuñ ko je pense bien que duñu mën a arriver à une solution loolu débat. voilà non une solution définitive mais li ñu bëgg a wax mooy solution. ban mooy indi voilà d'abord d'abord mooy li wax sànq gis nga kaddu. ay brin d'allumette yu nekk ci boîte la. Mhm. kii da koy jël taale ko añ. kii jël ko ah, ah taal ci loo xam ne tey moom buy yàqu muy muy tux moom lay yàq. Mhm. kii jël ko taal ci station ñëpp tàq. Mhm. maanaam bu ñu sàmmee kaddu muy brin d'allumette yi ma wax. ku ne brin d'allumette bi nga jël def ko fi nga xam ne boo ci toggee añ da nga ciy ñu lekk ci kii moom bu dee kii moom brin d'allumette moom na ci yàq mais na ci yàq boppam mooy par exemple kii taal tuux boppam la yàq mais na ñu fexe ba almet ba ñuy taal bu ñu ko toggee añ bañ cay togg ñëpp yeq ci mooy wax man discours Sénégal buñ koy soigné rek mooy li may wax sànq vote ethnique kenn doot ko dégg ci presse bi mooy discours bu ñu ko changé rek ka yàq fañ ko war a waxee ne yaa ngi yàq dana ko comprendre mooy discours bi nga xam ne tey ka ka xam ni ka tey ka kay xeex ndax candidat ñu xamal ko ni démocratie la ñu nekk sa candidat moo la gën a xam loolu te encore une fois ñu bàyyi naan Thiès Ndar wala leen ay jeunesse nangam. jeunesse bi toog fii rek kenn bokku ci ñu doon yàq lay jaajëfal bu baax euh, Badji euh, ñu ngi lay jaajëfal bu baax euh, MC temps bi moo ñu xoj temps bi moo ñu xoj man bu ma neexoon def violence ndax man damaa jàng karaté ba ni ar cinquième dan laa ma neexoon def violence comme que man maa deful violence nag na àdduna bi yëpp bàyyi violence Euh, mu ñuy euh, bu ñu synthétiser lépp rek ñu jàpp ne violence loo xamante ne lu ñu war a éradiquer la euh, ci ay deb échange lañ koy mën a éradiquer ci ay waxtaan ci juboo lépp nekk Sénégal lépp nekk benn bopp comme ni ñu ko kilifa yi daan waxee lépp doon benn nañu waxtaan nañu defee nañu def essayer def dialogue pour mën a juboo Euh, bu weesoo loolu nag euh, balaa may tàggoo rek dafa am benn tiis bu da dal ñun suñu kaw euh, ci presse sénégalaise sama xarit sama sœur Marianne Siva Diop génn àddina mu nekk loo xamante ne lu ma naqari la man sama wàllu bopp ndax bi ñuy mujjee gisee samedi la woon sama mariage mu ñëw teewee ko ñëw ma naan ko bis bu ñu may takk te ñëwoo dama lay bàyyi xam naa dafa mel ni loolu la doon xaar mu jugee ci lundi ñu déggante. boobu la ñu mëjee déggante ma xëy gis ko ci presse bi mu nekk loo xamante ni métti na ma ma ko jaalee presse sénégalaise bi yëpp di ko jaale famille am di ko jaalee ñi nga xamante ne ñooy promotion fab